ndékki. dëkk bi yépp ngi fii. Hmm. toog. waaw indi fi ay xale yu feebar. Hmm. ñi dañoo siti korobët sedd saan yaram buy xasee tundee fa hmm. lépp loo xalaat ci feebar mi ngi fi toog nga naan fi da ngay ndékki gis nga man. toog dama daw. yow yaa dal xel. deuxième mën naa ko dama ko toog bàyyi xel bu baax. wala patient bi jiitu rek nare kii damay daw de. yaa may naan loo oh yaa may naan loo ak xool dama. waaw. bu la ah. mën naa ko gën ah ay saano yooyu la ñu wax ay saano ak ay palpitation yëpp mën nañu ko gën ah. sant yàlla baax na alhamdulilah tabaaraka allah macha allah. sëñ bi. waaw balaa may tàmbali ak sama doom ji ma fi andi rek. waaw instant sax xam naa biir baa ngi metti hmm. dama lay sant rek di la gërëm. bi nga ñëw ci tund wi ba léegi. Hmm. benn yaay jaaxleetu. Hmm. ñoo ngi lay sant di la gërëm. macha allah léegi sama doom nag laa indi woon ñaari fan a ngi nii nelawul lu mu lekk wàcc ko. ma ne xaaral ma andi ko monsieur l'expert ba xam lu mu ci mën a jàppale. xale yi moom nekk di fa balaa ko taxawaloo ko. daw yëg ci garab yeeg yooyu noonu parce que am naa est-ce que tooyul yooyu noonu wala yaakaar la tooyul. Hmm. la sama xarit bii dëkk Dakar. Hmm. Dabalaay. Hmm. doom bi ñëw fay dëkk si dëkk bi. sama yaakaar moo fi andi coronavirus. Ah? waaw corona xuli sa bët woon xuli sa bët. wax léegi daa am dafa corona. mais kii nag foog ñu defal ko benn traitement quoi hmm. waaw xam naa ne boo génnee Cheikhou mooy assistant bi dina am lu mu def ak yow nga ci yaakaar bu ñu ci bëggoon a wax allah fii l'expérience soit tout. incha allah feebar rek feebar boobu feebar gars yi ñu naan rek. mais amatu point ma. jëlal lii nii. Mhm. lii ndax la ah. boo benn suba benn ngoon benn suba benn ngoon koy jël. Cheikhou dana nu koy jëlee quoi après di ngeen ñëwaat incha allah bu neexee yàlla. incha allah kañ la ñuy euh, ah, yàlla baax mu ngi koy yàlla baax mm-hmm, yàlla baax incha allah. <laughs> Mm-hmm, yàlla baax. ko da ngay seeyee si mais macha allah nga doon jigéenu ah. non c'est parce que dañu ñëw weekend si fii man ak sama doom bi. foo jógee ko. Dakar. ah ok Dakar yéen nga. kon yow xew fi dëkk bi yaa fan yaa sa non non bu gaawatu. ah. démb la ñu ñëw. Mhm. mu xëy biiram bi di metti lu mu lekk mu koy wàccu. Hmm. waaw. xoolal mu ngi gañ ah. soxla <coughs> muy métti. biir mooy métti quoi. biir bi gañ ah. seen booy nekk fii nii seen booy nekk si koñ bi nga xam mooy loolu. Hmm. ñoo sant trop seen village ah, ah. ah. doo faral di miir ah. waaw miir la. baloon miir la sama yaram daa bëree ci ballon miir nga am miir nga am bàyyi ah? ballon miir loolu la am quoi calendrier ñoo bàyyi quoi parce que li muy faral nekk jën dafa bëri quoi dafa am poissonnière moo tax ba pare ba ji après ba dabaloo quoi doon essence raa raa boo ko déggee ku ne xam ne raa mooy gañam ñoo tax ci bi ay ay raa yu ndaw quoi ñoo ko sonal trop

bu mu nekkee xale mm, waaw. assassin ko dal xam naa <laughs> koy teg ci code quoi gis nga bii nii xam nga ko. bii paracétamol de. merci beaucoup waaw wala ci bind léegi moom fu mu ne day jël benn suba benn ngoon euh, ñetti yoon la koy jëlaat ah. boo demee fii euh, ci assistant bi na la jox garab yi kii kii la ah, kii kii la moo nekk nii ah, pour nga xam ko pour ma jàngoo sax mais jàngoo. demal. je pense que indigestion alimentaire la amee parce que comme ni ñu jógee Dakar mu bañ a tàmm lekk yi fii loolu moo koy jox jaare jox ko euh, ay vomissement man je pense que ne ah, loolu euh, defuma ko mais d'après signe yu mu am nii. Hmm. waaw loolu lay joxe de. da jàng naa tuuti nag. mais jàng métier bi. non jànguma ko. Ah, man ma wax ak jàng métier bi nga def di ma ko defee ah? ah li ma la wax bu doon la wut benn doy la wala doy la. ah baax na. waaw boobu ba léegi dëkk bi di wax l'expérience maa ngi faj gars yi ma ñëw fi nga fi naan alors mun ngaa dem ah tool ci instant bi jox la ko mun ngaa dem mooy nga roo ko waaw. merci. yàlla ko def ah. ay. tey borom ndaw si bon dëgg dëgg dëgg kii bi dafa doon si météo ji dëgg bii nii il faut nag ma gën a def attention parce que ndaw sii ni mu jàppee man naa ma ay décision alimentaire ah, ay décision te li ma ah boo xool xool loolu ma jàppoo naa ko ay ballon mi rek <laughs> ay poissonnier man damaa ñëw yàlla ay sincère mais yëpp ah day baax incha allah bu neexee yàlla yàlla ko yàlla président man yàlla ko faj président man mën naa faj ku ne.